jar rek y' a jamais deux sans danger Dieu merci comme ni ma ko waxee woon yàlla nañu yàlla may nag ñu yeggali ne woon naa Youssou mu ne ma fay ma ne ko Ndour mu ne ma fay ma fay ma ne ko Ndour ma ni euh, man ni ko nan téye VDN rek ba pare li ñuy def daal di delloowaat caabi yi oto yi daw donc loolu moom mooy ne am ci VDN man maa ngi jóge sama kër vingt vingt vingt deux heures mais pour ma yegg si minuit Touba donc yàlla na jàmm yàgg Dieu merci. si beaucoup kontaan ci melomaan yi ak fans woo woote yi ñu wuyu si la rek dafa mais nag euh, loolu yëpp ñoom la ah di leen xamal ni daal di leen leen ko tëggal ba mu neex la.